bii kese la may wax mu naan dama leen di jox cent millions yow. am na ñu sëñ bi dafa laaj. waaw grand tëjal bunt bi. tëjal ma bunt bi tëjal. Eh, bunt non eh. bu tëj bunt bi ubbil bunt bi waaw loo bëgg wax. waaw Youssou waaw oh. Youssou bàyyi borom kër gi bàyyi bàyyi leen kii dama koy voilà. waaw bul tëj man ba léegi yëguma la xew. yëgoo li xew. waaw léegi fi nga tëdd lan la. waaw léegi. Hmm. man. Hmm. waa Sokone la waaw. kër ala Amad Dem bu Sokone. waaw ya may Wow. waaw fi jël. kan ngay lan lañ fi jël. dañ fi sàcc dara. yow nga ñëw pour jàmm man ci bis bi nga yore yow. man loolu suf ko. kur ko ba pare nga negla. Fi si la suuf bii nii kuur hakan. nii fii lan la fii néeg la. fii fan la. bi ñu man julli julli du la gis nga gis nga fii aadi foo dëkk yow. yow ah. man jiw ma. xool kii woo ki mu ñëw woo ko. waaye yow doo may tudd yow gendarmerie ngi ñëw. Cheikh Tidiane Chérif hey tëddal laaw. gendarmerie ngi ñëw mooy tuma de. wuy ma mooy tuma. grand billahi fii kenn du leen jox xaalis man mën naa leen jox xaalis bëri ngeen sàng ma sutur. luñ koy doyee. wuy ma jullit nga. yow boo naroon sàng sutur di jël tournevis bi pour jàmm yow nga naroon ma toroxal ak sama jàmm. ban tournevis laa la jàmm. tournevis bi ku ko yore woon. sëñ bi gis nga lii ba nga ko xamee loo doon wuti fii. déedéet man ba léegi xaw ma lu ma indi fii lii dafay jeex. waaw kaa leen ma jox leen li ma leen di jox. waaw billaahi wallaahi tallaahi. waaw ngeen sàng ma sutura. non. bàyyi la waxal mu leer waxal mu leer. Eh, man woo naa ko. waaw comme man waxal mu leer. bàyyi ko xaaral waxal mu leer. yow lu la yebal fii. comme man damaa xam. xamoo waxal mu leer waxal mu leer. leer wax leer laa bëgg. wax leer laa bëgg. grand comprendre nga. waxal grand wax leer laa bëgg. mu leer mu lan yow kan moo wax fii. mais fii fan la. gis nga doomu xaram la bi fi mu yow.